avec Info Dakar. Avec Info Dakar. Fils du Sénégal, ak foo mënti ne ci àdduna jot information yu la. Aminata Mbengue ak Moustapha séq président Macky Sall ci biir Benno Bokk Yaakaar ànd ak moom ci at yi yëpp de jërëjëf may nuyu président assemblée nationale. Amadou Mam un homme engagé, discret et très déterminé. Merci aussi pour ta présence. Menu tous les responsables de Benno Bokyakar ici présents. di le privilège que j'ai aujourd'hui en tant que candidat de Benno Bokyakar c'est d'être soutenu et appuyé par toutes ces personnalités Té ñom ñep ku ci nek xamna ni du ay tiaxan wala ay waxi neen moy tax nga engagé wu. merci à la coalition Benno Bokk Yakar. Bayuma ci kenn président Macky Sall ñu yoral ko nuyo mais surtout yoral ko sante ak ngeureum yaakaar buñ dee wax Benno Bokk Yaakaar ba tey jii engagement ak conviction ci on travaille ensemble on gagne ensemble on gouverne ensemble président Macky Sall doxee na ko wone na ko wone na ni Sénégal ñun ñëpp dañoo war a doon ba ñoo war a bokk ndey bokk baay et que politique de uniquement ay kuba yi ñuy joxante nañu pour une circonstance particulière bu soté ku nek dem sa c'est une véritable leçon que le président Macky Sall a eu à nous donner à travers Benno Bokk qui est aujourd'hui la coalition bi nga xamni ni mën nañu wax fi yegg ak fi mu ak at yi mu am amul coalition bu ko am

dara du ci wàññeeku alakuli alin dinañu xeex pour yokk ko ndax ku yokkul da nga wàññi kon incha allah Benno Bokk Yaakaar mi ngi fi depuis plusieurs années on souhaite encore et on va se battre pour ça on va se donner les moyens pour ça parce que j'ai l'intime conviction ñi nekk fii ku ñu nekk sa ginnaaw ànd ak yow waroo am sikki sàkk ni da ngay gagné élection ñu jublu nak ci comité électoral mais li ma doon wax légui importance am dafa wara jangal assistance bi notamment à la presse ni Benno Bokk Yaakaar di fonctionner bob batay xam ngeen ni kuy jëm élection di nga am directoire de campagne boy organiser ñun nag suñu directoire de campagne on souhaite que ça soit inclusif yomb na lool parce que responsable yi fi nekk yi yëpp koo ci tànn loo ko mënti jox mën na def la nga war def sax mu defal la am nañu xam-xam boobu am nañu expérience bi am nañu moyen yooyu mais ni bennoo bindoo ak li ñu président jàngal mooy lu nekk waxtaan ko ñu am organisation boo xam ne teg nañ ko pour jëm ci élection bi pare na ñu defoon benn séminaire mais xam ngeen ni séminaire ñëpp duñ ci nekk benn groupe la woon mu nekkoon ci set bi xam naa ni moor na ci ñëwaat léegi ñu def séminaire pour am lu ñu proposer. président Macky Sall rafetlu ko dëgg neex yàlla man rafetlu naa ko mais dañoo nekk ci politique ñi fi nekk teew ñëpp yor ay parti wala ay coalition kon dafay baax balaa nga ciy def lenn nga leen leen ñun kat mandat bi ngeen ñu joxoon lii lañ ci def xam nga bu la neexee nekk candidat rek taxaw ne bon Mor Ngom dénk naa la nangam bu suba nga ne wala diw dénk naa la nangam du loolu moom mooy defar liggéey surtout boo yoree coalition boo xamante ni ni ma ko waxee léegi kilifa yi fi nekk ñu ngi ci biir bi ñu paree ci loolu ba juboo ci

Modeste, ni animé. ko war am solo sa volonté sa volonté yow moo tax tey li andi et am une méthode novatrice Je ku nekk dañ lay wax na nga tànn fi nga ñu ñëpp xamante nañu xam nañu à peu près ku nekk fi ñu jàpp moom moo gën mais li gën a rafet li gën a jaadu mooy ñu laaj la ko kooku moor dina ci ñëwaat léegi buñ ci paree vendredi bii di ñëw bu ci yàlla àndee ndax dafa am ay réunion hebdomadaire Le secrétariat Benno Didef tous les vendredis président Moussa Fagnas, dico qu'il présider buñ ci avez muy exactement nous yëf yi le bu on entre en jeu pour faire les arbitrages équilibrés parce que vous nous sommes ni ñëpp ci benn pôle la ñu fexé jële fofu ay nit yóbbu leen ci beneen pôle lolu gën ba tardé danañ ko def samedi après on va faire maintenant un séminaire avec tout le Benno notamment le le le la la la la hmm? la conférence des leaders Nous ñëpp élargi. kooku gën baa tardé dinañ ko def tout juste après le congrès d'investiture de Benno bu ñu ko defee bu boobaa ku nekk di nga xam cër bi nga ci am ak ñi nga bokkal cër bi ak liggéey bi nga xam ni dinañ la ko sant nga def ko maintenant d'ici là d'ici au plus tard le 10 janvier Bidignon. dans toutes les communes communes montées monter comité électoraux parce que l'élection, am li nga au sommet vous ñu tous tout sommet Mais ça se fait sur le terrain parce que Benno c'est un parti de masse c'est un parti c'est une coalition de masse la c'est une coalition qui a maintenu commune une dugg mën na am ay sensibilité commune bi mu Nous, nous la les bindoo nous lay d'ici le 10 donc on va se donner les moyens avec l'ensemble des organes de bendo, mais parti ku dans la semaine nga djublu ci defar ce comité électoral du ñak ben commune wala ñaari commune où il va y avoir des difficultés on le souhaite pas mais euh, boy def mom da ngay anticiper on prendra une semaine pour régler toutes ces questions mu allons, ñu bu ci vers le 15 le 17 janvier xamna allons ne ci lañu def séminaire bi Fek lépp paré et bu on va lancer de manière effective et de manière déterminante le processus devant nous mener à l'élection du 25 février. Inch'Allah. loolu élément yi à votre connaissance ma sant di len di les préoccupations que vous avez globalement yep, bu parewul it avancer nanti. ci li nga xam dina dem ci élection li ci jiitu mooy programme on n'a pas pas de problème à ce niveau là Amnalo na loo xam ni ñu ngi ci ànd président Macky Sall yàgg na liggéey nañ ko ba tollu fi yan Diego lañ ci war dox pour trajectoire bi mi jël nous mën accélérer Nous nga tout ce qui concerne l'emploi des jeunes incha on va y aller de manière déterminée dans le cadre du programme que le pôle programme va prendre en charge et que nous allons mettre à votre disposition. Voilà, mesdames, messieurs les quelques informations que je voulais porter à votre connaissance. Et je vais, sur ce pas, vous remercier. Djeredjef, Djeredjef. ginnaaw bi nga le président Moustapha Niass bi nga xam le président Macky Sall président de la coalition Benno Bokk jël na kàddu gi ubbi waxtaan bi jox notre candidat Amadou Ba mu jël wax li nga xam ne ni moom moo jëm ci directoire bi damay ñëw rek ci biir directoire boobu faram fàcce ko wax pôle yi nga xam ne ni ñoo ci nekk pôle yi ma nar a wax nag dañ koo ubbi képp koo xam ne nii am nga xam-xam wala nga am yéene wala nga am pas-pas ne man dinaa dugg liggéey ci directoire bi man nga jibindu parce que Cheikh Sarr mu nga ne yor na feuille yi dina ko distribuer ku ci am yéene pas-pas nekk leader nekk membre Benno Bokk Yaakaar am nga pour bindu ci maintenant li may commencer mooy ne lii ñuy def nii tey muy directoire bi ay pol la ñuy wax fii mais bu ñu paree ci pôle yi dañuy territorialiser le directoire territorialiser directoire du quoi Ce que nous wax dem ci yi ak am comités électoraux départementaux département bu nous dina am comité électoral bu fo xamné ni commune bu dina am comité électoral pour xamné ni da quartier bu dina comité électoral bo xamné ni de loolu mooy tax mu am link maanaam ab jotkalante boo xam ne ni day nekk ci biir gox yi ak gox goxaat yi ak directoire bi nga xam ne nii moom la candidat bi di yor léegi li ma bëgg a commencer ndax bu ñu waxee wane woon mbir mi dafay mel ni arborescence benn garab la boo xam ne nii dafa nekk ca kaw candidat bi moo fa nekk mais ci kaw candidat fi mu nekk noonu mu jële fa yeneen car yoo xam ne nii dañ fa jóge wàcc ci suuf bi nga xam ne nii moo ci gën a am solo maanaam cër bi nga xam ne nii ñun parce que dañuy joxe cër mooy pôle stratégique pôle boobu président Macky Sall daf ko jël dénk ko kilifa goo xam ne nii ñun ñëpp. weg nañ ko teg nañ ko fiko yalla, yàlla teg muy le président Moustapha Niass ci biir pôle boobu ci biir pôle boobu daañu ci fekk ñii nga xam ni nii ñoom ñoo toogandoo ak moom muy président d'institution yi rawatina rawatina politiquement ki nga xam ne nii moom moo woot wuutu feu Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla muy la présidente Aminata Mbengue Ndiaye le président de l'Assemblée, non moins très politique, et je dis bien très politique, le président Mamdjo. Il y aura toujours dans ce pôle stratégique les leaders emblématiques de Benno Bokuyakar et de la grande mouvance présidentielle. Il y aura toujours dans ce pôle le président Abdoulaye Daoud Diallo, qui est le président donc du 16 y aura toujours dans ce pôle les coptés décidés par le président Moustapha Niass donc Paul Bobu, de Fenane, ne liñ ci waroon a wax wax nañ ak ak ndaw président Moustapha Niass dina khol, mom ci matam nyanga ngeen ñoo de Copte, pour nous and ak def Paul Bobu. Paul, bi nga xamné ni mom mo ci am solo ci walu tas xabar ci walu woné candidat bi ci walu un li nga xamné ni mom information muy Paul communication Paul communication Bobu. Paul bu am solo la ndax ku jëm ay élection di nga waxtaan ku jëm ay élection di nga wax ku jëm ay élection di nga kon ko pôle bobu mo am pôle communication ak pôle porte parole yi beneen pôle bi ci topp communication mais communication bu bii yoon communication digitale communication digitale xam nañ ne ak ay fan inshallah télévision deetul woné lu jëm ci walu politique Radio deetul woné lu jëm ci walu politique donc réseaux sociaux yi ñun dañu ko soxla bu boba donc comme pôle digital bi dafay am solo mu am ñu jóge ci loolu dem ci pôle bi nga xam ne nii mooy nekk pôle bu am solo moom tamit di mouvement de soutien yi xam nga lu tax mouvement de soutien yi am solo dañu jàpp ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñun waa mouvance présidentielle ñoo xam la AFP la moo xam APR la moo xam PS la moo xam LD la moo xam. Benen parti ku ci nek amna ay xarit yo xam ni ñi ngi ci bor bi politique du waye ba président Macky Sall ak Benno Bokk Yaakaar joxagne le président le candidat Amadou Ba amna ñu yéene ak pas pass and ñëw japp ci pour que l'élection puisse être remportée dès le premier tour le 25 inshallah motax ñu créer pôle bobu ñu jóge ci pôle bobu mu amaat benen pôle pôle bo xamné ni pôle mobilisation la parce que nak politique ko wax di nga tuddu mobilisation donc pôle bobu pôle bobu di pôle bu am solo ñun ñëpp ñu déggandoo ko noonu mu am pôle bu am solo bo xamné ni aussi ndax ñun président Macky Sall bi muy créé APR dafa 15 quinzième région muy diaspora te diaspora bëgg nañu.

Paul, bu am solo donc moi Paul jigéen Paul euh, paul bi ci top Paul Paul jeune yi ndaw yi parce que politique buñ ko day wax la ak jeune yi donc ñaari Paul yoyu waaw Inshallah, Inshallah, ñu sommes ci ci muy pôle logistique pôle logistique bi ci la bép jumtuwaay di aajo bobu yi tamit am solo ñepp ñi nga xamné ni seen xam-xam match lañ ci lolu ñoo ngi leen di ñaan ñu inscrire ci liste yi nga xamné Cheikh sar yor na pour ci pôle logistique bobu après le pôle logistique maintenant on va suivre le pôle programme candidat bi dafa am programme programme boobu dañ ko bind de manière globale maanaam dañ ko tënk waaye il faut ñu param euh, pàccam ko ay pàcc yoo xam ne nii faram boobu ñu ciy def dañuy jël ne pôle maanaam gox boo xam ne nii ndakaaru fii mbay gi bariwu fi donc li may wax ci wàllu mbay am na ñeneen ñu mu gën a ñor ñooñu dañ ko faram bu nga xam ne nii dem ca foofa lam fay wax day mengo ak ña nga xam ne nii mooy bëgg-bëgg ak yéene ak pas-pasu ñooñu donc pôle programme loolu moo nar a nekk seen liggéey pôle anti pôle euh, contre programme Bobu duma ci sori c'est sans commentaire parce que xam ngeen ne wax dëgg yalla kuy dem di nga am na ñoo xam ne nii lañuy ñuy wax ci yow du noonu di il faut nga am di càmbar saytu pour xool noo koy noo cay taxawee maintenant mu amaat beneen pôle pôle bu am solo mooy pôle opération électoral defe naa ne li ñuy def nii ak li nga xam ne nii am na démb bërki démb ci wàllu parrainage ak leneen ay opération électoral la pôle boobu tamit moom moo nar a topp. liggéey bi Chamber, Narco càmbar nar koo saytu vive le président Amadou au soir du 25 février Si nous avons ci opération électorale mu am ñi nga xam ni ay grands électeurs lañu maanaam mën nañ leen a waxee noonu muy ñi yàlla jox ndombol tànk ak ñenn ñi nga xam ni ay grands responsables lañu ñooñu tamit am pôle bo xam ne dañ cay pour di xool naka la ñu mën a def ba mën a boole seen doole bu lëkkale ko mu am njariñ amal njariñ candidat bi amal njariñ coalition bi mu am euh, le du secteur informel informel dafa am ndax sunu mbokk yi nga xam ne nii dañu nekk ci mbedd yi di jaay ñooñu tamit dañu bokk ci mbir mi le secteur informel ñooñu. ñoo artisanat yeeg ñëpp ñi nga xam ne nii bokkuñu ci lu formel dañ leen a may cër cër bi ñu leen jox moo tax ñu créé pôle boobu ñu jóge ci loolu ñëw ci pôle bi nga xam ne nii parce que bu ñu waxee ndaw ñi léegi dañu wax ndaw yi de manière globale mais ci biir ndaw ñi dafa am ñoo xam ne nii ñi ngi ci daara yi maanaam ñi nekk ci daara yi ñi nekk ci école yi ñi nekk ci université yi ñoom itam dañu am seen benn pôle boo xam ne nii daañ co daje di waxtaan di xool nu ñuy nase ak nu ñuy noccee mu am beneen pôle di pôle bu am sul bu am fula aussi bu am euh, loo xam ne nii dañ ko cay def muy ñi nga xam ne nii yàlla dafa def ak ñoom xëy na am lu manque ci ñoom ñu di ko wax handicap te ñoom ñu jàmbaar lool lool lool lool ci liggéey bi ñoom incha allah daañu leen créer benn pôle ñu nekk ca di liggéey ñoom ak seeni moroom pour que yàlla ñu aussi ñu mën a àgg ci li nga xam ne nii moom la ñu bëgg mu am pôle organisation amaat beneen pôle boo xam ne nii pôle financier la am nag pôle bi nga xam ne nii. commission spéciale ñu def ko muy les religieux les religieux nag mooy ñi nga xam ne ñëpp seen ngëm-ngëm màcc na ci lenn ñoo xam ban bii la wala beulé la donc ñooñu aussi dina am pôle bo xamné ne ci lañuy nek mu am pôle société civile ak privé ndax amna na ñoo xam ne nii liggéeyuñu ci administration liggéey seen liggéeyu bop lañ yor mais wax dëgg yalla ma amna fo xamné ni ne mën nañ fay daje di waxtaan ñu seet nu ñuy jàppale candidat bi seet nu ñuy jàppale Benno Bokk Yaakaar seet nu ñuy jëlee mbooloo bi pour mbooloo moom yëpp mën a jóg taxaw bis booba euh, ginnaaw loolu mu des benn boo xam ne nii mën nañ ko tuddee pôle waaye bu ñu neexee ñu ne moom mooy cabinet candidat bi biir cabinet candidat bi lu waay xam boppam xam nit doo ko gën a xam boppam. avec Info Dakar. Avec Info Dakar. Sénégal, à fond maintenant, tu as tout le monde. information, il est.